ñu dugg ci ñaareeli thème bi kon niñ leen ko doon junjee gannaaw euh, ba ñu paree ci of OFNAC AIBD ak ay nataal yoo xam ni yu fa jóge yu kenn rafetluwul ay nit ñoo xam ni ci kaw carrousel bi maanaam tapis bagage bi pour wax lu nit ñi mën a comprendre ñoom ñoo yéeg ci tapis bi ñii jéggeeg tànk ñenn ñi dem ba di ci tëdd mel ni ñu nekk ci parc parc d'attraction li ñu jaaxal nag mooy loolu wóor nañu seen xel xalaatul def ko aéroport JFK New York hmm. Rome sañu ñu ko fa def duñ ko def Paris lu tax ñu ñëw ba Sénégal di ko fi def quelque que soit nag dysfonctionnement yuñ fa mën a noté carrousel bi am na yoon boo xam ni mën nga fa duggee xëy na day sori nga wëri yegg fa waaye Yékini du looloo taxoon ñu defar ko ba tax ñu indi waxtaanu indiscipline bi ñuy wax ci nit ñi léeg-léeg ba pare réclamer jumtukaay jumtukaay bi bu amee duñ ko jàpp ni mu waree def naka sudul noonu te bu ñu jëlee exemple AIBD bi mun nañ ci toftal beneen tali bi indiscipline bi ci nekk am na ñu naan mën na tënk Sénégal ni muy doxee tali bi tali Sénégal tënk na ni Sénégal di doxe muy lu doy waar moo taxoon ñu indi thème bi jéem a seet naka la mën a saafaroo ndax euh, xëy na ñi ngi jàngale ci école yi ñi ngi yar ci kër yi mais ndax ñaar yi am na adéquation lu waral lii lañu buggoon bëggoon jàng ak euh, sociologue bi ñu njëkkoon a invité waaye yàlla dogal na kii fi toog it sociologue la euh, donc danañu ci mën a indil ay leeral ndax ni ñuy wax xale yi li ñu leen di am na adéquation ni ñuy wax entre éducation scolaire bi ak éducation sociale bi ndax du xëy na loolu moo feeñ dañuy teel a dem école léegi. six ans léegi sax crèche dangay am trois mois xaw ma six mois sax yaay di la dénkaane crèche ngay yaroo ci loxo ñeneen ndax ñooñu ñi ngi taxaw taxawaay bi war donc xëy na man damay anticiper di jéem a xàll yoon tentative d'explication mais xëy na ci waxtaan wi dina gën a feeñ ak image yi niñ ko waxee birima génnee ca AIBD balaa may dem ci sociologue bi loo ci xalaat laa lay njëkk wax yow. waaw man bi kii bi image yi man dama ne ñi li war a njëkk def mooy génne seen image jàpp ne du tëj leen d'abord dañu war a jàpp parce que ay milliards la ñu war a fay fii ñu ñu ko war a fay. donc ñi dañu war a jàpp d'abord dañu war a arrêté seen image yëpp la war a génn tur yi dem fekk leen fa ñu jàpp leen arrêté leen. première chose mooy man loolu mooy loolu heure war procureur jàpp beneen bi ci des nit boo fonkul sa bopp kenn du la fonk te wax dëgg yàlla ñun dañoo fonk suñu bopp moo tax ñëpp duñu duñu xeeb <coughs> même boo demee <coughs> aéroport Charles de Gaulle dañuy ber terminal 2 e ba ca fond ba. ñu la fii la léegi nga jël train yóbbu la feneen mais boo dee ci terminal yi nga xam ni ñi jëm biir Europe. Mhm. wala ñu jëm amee états uni léegi ni mu dalee mais boo jubee africain yi rek dégg dàq yi dégg yuuxoo yi donc nit day gëm boppam. sànq défendre nañ bu baax policier yi waaye fu ñu newoon tamit bi lii di am. waaw dama ni. non dama ni est-ce que police dafa foog tamit autorité ni ñuy wax ndegam seen propre morale wala éducation mayu leen ñu éviter ko fii policier waru fa def fii. waaw je veux dire quand je dis policier mooy en tout cas ñu chargé de sécurité ay wala vigile waaw bu ñu nee fi policier moom ay xar yu wàcc am ñoo ñu leen di gurgur mooy ba ñu def erreur ñooyam dama daal ci gàttal dafa am yoo xam ni sëñ bi du police. amul benn Sénégal amul benn état fi bu la mën ne. jotaay bu ñuy Sénégal ma def fa benn police ñu suñu police bi numéro un mooy suñu xalaat suñu xel suñu honneur suñu patriotisme loolu premier policier boo xam ñu ànd ak ñun tous les il faut ñu bëgg suñu réew mii ñu yor mu Sénégal ko xam nga taxaw ci kaw tapi di dox même bu la kenn waxul dara te boo boo ko tuddoon boo ko tuddoon léegi day ko saaga la mm-hmm. ñax sa xaj na ñu ne xoolal ñi ndax ko filmé la ko bett waroon filmé ko mais day lay sax saaga en tout cas ñun thème bii lañ waroon a njëkkee ba ñuy yàq dindee li nga wax noonu li ma d'accord ci yow au contraire bi éducation civique dañu ci école primaire yi la lu bari xew ci Sénégal xale bu nekkee ndongal daal bu nekkee basage âge nga koy jàngal lan mooy nation lan mooy patriotisme lan mooy sa réew lan mooy sa bàkku réew yooyu yëpp pour indiwaat xale bi la mu xam ne am na lu mu bokk ak ay nawleem ci réew mi ci dëkk bi. xam nit ki il faut mu bëgg réewam. pour mën a sàmm réewam. mais fi mu nii problème mu moom ci réew nit ñi gëmut nit ñi gëmutuñu réew gëmut xamuñu sax luy seen. seen réew. par exemple oto bi taxaw di jaar fii li oto yi nekk ci dëkk bi loolu moo wax ma ngi cinquante millions de fois. amul benn secteur booy dugg doo fekk industrie boo xam ne doo xam ci lan la bokk. léegi bu njëkk yaa ngi rappelé bu njëkk sotraak bi ñu am du woon sax sotraak bu mag duggsee ci bis bi li xale yi njëkk mooy jóg bàyyi ko mu toog mhm. loolu dafa ne moom da nekk réflexe ci réew mi lu may wax ku daan dugg mhm. sotraak mhm. fekk nga loolu kaar boo duggee bu mag ñee toog wala jigéen li nga jox mooy jóg bàyyi ko ci kër yi lañ la ko doon jàngale mais léegi si nii boo doon màggat moo taxaw sax xalaatoo xale jóg may la nga toog donc dama yaakaar nii il faut ñu xoolaat suñu bopp. bu ñu bëggee avant développement ci bëgg sa réew la njëkki sinon dinañ wax fii nañ débat fii mais réew mi fii rek lañ taxaw. jërëjëf comme ni ma wax yàlla dogal na sociologue nga waxtaan wi kon euh, yàllaa la ci boole. Ah. ñu bëggoon a xam lii noo ko mën jàngatee yow en tant que sociologue ak nga expliquer ñu lu ko waral ni ma wax je n'imagine pas que ñu def ko JFK duñ ko def la Guardia. duñ ko def feneen ak feneen mais ñëw atterrir Dakar ñeme fi def lii. waaw merci Khalifa bon d' abord il faut que quand même <laughs> parce que j'avais dit rendez-vous de. Mm-hmm. dama waroon dem juste après. mais bon anyway mm-hmm. comme nii la demee effectivement mun nañ ci dugg comme tu dis aussi mun nañ ci am nañ ci xalaat. buñ ci mm-hmm. mën a partager ak ñi fi toog ak askan Sénégal bi. mais je parce que am na ñaari mbir mais balaa mu ñëw si ñaari mbir yooyu ñu constat bi lan la. il euh, y a un grand sociologue Émile Durkheim mm -hmm. qui développé bu développé benn notion boo xam ne ne pour man loolu moo adapté wu ci li nga xam ne moom la ñuy dund muy la notion d'anomie boo déggee anomie mooy war foo xam foo xam ne ne absence de règles déréglementation totale vraiment yoo xam ne kenn respectul benn règle société bu àgg foofu te loolu sax la doon justifier ay mhm. cas wu ci suicide la <coughs> it mhm. suicide la jógee ba agsi ci yooyu tu mhm. vois donc pour dire que nit ñi ñu ngi dund dund bu metti bu doy boo xam ne ni xamatuñu fu ñu jaar y a a absence de repère absence de ressort ressort yi amoon commencé damm et ba tax ba finalement yow lu waay neex def parce que sauve qui la parce que stratégie euh, de euh, comment dirais de survie la et cetera ku nekk moyen ba mu ne ci nga def ko mais ma gis ci ñaar pour man benn bi mooy le passage ou bien le dialogue entre la tradition et la modernité nous on l'a pas dañu plonger dans la modernité qui finalement pour ñun c'est en réalité adhérer à une façon de vivre occidentale etc avec des des relents des ay repères yoo xam ne ni ci beneen environnement Euh, la la approprié wu pour man loolu bokk na ci liy caractériser suñu ay comportement ba dugaluñu ordre ci nouvelle sphère yi nga xam ne ni ci la ñu bëgg a évoluer ñun daa dans la modernité euh, muy ah, dans si parce que problème yi si c'est la suñu grande ville yi nga koy am wala ay comme yu xew aéroport bi nga xam ne aéroport bu bees tàq la léegi nga gis si comportement yoo xam ne effectivement dina jeexal xol beneen bi aspect bi pour man mooy bi bërëm a laal c'est-à-dire le sentiment d'appartenance mu am lien ak li ñu doon wax sànq c'est-à-dire notre rapport au bien commun au bien collectif mm-hmm. li ñëpp bokk dafa mel ni ñun lu nekk bokk amul solo parce que affaire buur bi la quoi walla wala ñëpp ko bokk lu ay neex mbedd buur la dégg ma voilà mbedd et cetera mm-hmm. boo waxee sax nit nga dajeek moom ci mbedd yi mu def lu jaaduwul yow sax léegi dangay ngay ragal pour wax ko mais boo ko mhm. xanaa boo matul mu wax la lu tegginuwul mhm. wala mu la est-ce que yaa ko moom fii mbeddu mbuur la wala et cetera donc rapport boobu ak sentiment d'appartenance bi mooy ñëwaat fekk ci patriotisme bu mu wax parce que mooy bëgg rek fi nga dëkk parce que ku bëgg li nga moom li nga xam ne ni yàq bokk ak ñëpp da nga koy sàmm mais bu dee da ngay bàyyi loolu nga xool rek yow sa intérêt bopp parce que li nga wax ci peuple circulation même chose la parce que il faut toujours man ma jiitu Sénégal dafa mel ni daal de maa woon rencontre ak yenn ay ay député d'ailleurs kenn am benn femme ay dëmboy sax moo ko doon wax mu naan fi Sénégal moom daanaka ñëpp président lañu koo gis président lenn nga loolu dafa mel ni dafa nekk suñu mentalité ku su rek da nga bëgg waru daal da ngaa war di jiitu même ci tali bi doo topp ci keneen ki foog nga mhm. jéem ko euh, xam nga donc comportement yooyu pour man mooy li nga xam ne nii sori na suñu askan wi ba nga xam ne ni tey moo ñu indi problème yu mel nii mais leneen lu manqué nag mu war a tax moo tax li di am mooy foog ñu fàttaliku euh, parce que ñu ngi wax ci anniversaire mais organisation méthode aussi. Mhm. daf di loo xam ne ne état moo koy teg ci société. Mhm. pour société bi mun a nekk ci benn cadre. Mhm. ñu xam ne ne cadre bi comme ne leen ñu n'est censé ignorer la loi mais fexeel ba nit ñi am lu xam loi bi mooy éducation loolu ci éducation la bokk. mais loolu aussi amu fi dafi naxa saay donc ñun de tous les bouts. dañ nekk société boo xam ne ni c'est c'est une société laissée pour compte hmm. à elle-même buy débrouillé donc système de moo fi nekk moo tax yow yow as gi ak bu tudd di nga am hmm. sa biir kër kële amu ko bu ngeen dajee ci mbedd mi loolu day am choc day am hmm. conflit conflit boobu kan moo koy arbitré amul ku koy arbitré parce que dañu doon yaakaar peut-être euh, état bi nga xam ne ne moo war a dekk <coughs> euh, faire respecter laa loi mais foofu aussi on a vu manquement yi fa am ñi nga xam ne ñoom seen bopp même problème yi ñu ngi koy vivre dans les corps yoo xam ne ñoo war a ñoo a appliquer la la la la la réglementation donc ñun anonyme boobu nga xam ne ni moom la Serigne Mor moo ko doon njëkk di wax naan on est dans une société malade folle qui nécessite un ëpp je parce que effectivement loolu foog ñu taxaw ci. parce que am na société yu yoo xam ne dañoo jógee ci yu mel nii mais tey ñu ne cocc dama lay jox kaaw am na ko tudd Rwanda rek mhm. loolu la ko indi leadership politique moo ko indi aussi ne leen eh, fii amatul utu tutsi fii Rwanda rek moo am sentiment d'appartenance su ma doon wax sànq yoo mhm. xam ne ñun ñoo bokk leen benn lañu dañ sàmm loolu mhm. mais tant que dugaluñ ko suñu bopp yi mu nekk suñu ay jikko ah yu mel ni dina fi dina fi gën a bëri. professeur ni mu wax dañu war yegg ci ndëpp après image yi ñu gis ak euh, li xew ay BD. ak hmm. euh, yeneen yi xew ci yeneen secteur réew mi. waaw dañu war yegg ci ndëpp comme disait mon prof de psycho à l'université Serigne Mor Mbaye il a invoqué Émile Durkheim mais xam nga da ngay ndëppal koo xam ne dafa dof mais le grand problème mais c'est que gars yi dofuñu. gars yi dofuñu kon lu leen jot lu leen jot. mooy. wala lu ñu dañ dimbalewul. ci seen nité maanaam dañoo woroo ak li nga xam ne moom ngay njëkk a régler. Mhm. balaa leneen di ñëw mooy ñu xam ki ñu doon xam réew mi ñu doon ñu xam lan mooy ci seen àq xam lan mooy ci seen yelleef. en principe folie pathologie pathologie la. Mhm. feebar la. Mhm. mais ci société bi ñu toll folie boobu moom moo nekk la nouvelle norme. parce que boo dee folie nii yaa ngi koy pensé en rapport ak benn modèle mais modèle boobu da ngay fàtte ne moo fi nekkatul et en tant que tell ça ne devient plus de la folie ça devient une manière d'être qui s'exprime au quotidien donc loolu li ma li ci bëgg a jàngal mooy ñun dañoo jékki-jékki ñu ne ay citoyen la mhm. mais citoyen kenn du juddu nekk ko on le devient dañ koy jàng comment le devient mais par un processus waaw waaw dee waar xoolal mi ngi comme parc d'attraction ni ñuy tëddee ci kii bi mu lay yóbbu naka hmm? waaw waaw image yi daf ñuy delloo suñu bopp rek hmm. Hmm? naka lañ koy defee ni ma la ko waxee mooy il y a un processus boo xam ne éducationnel boo xam ne bu amut résultat bi mën a joxe moom mooy bii nous réalisons dund ngeen ko fii le miracle d'une société sans sanction loolu xam nga miracle boo ne société sax man ma ne ana société ba junj na ko parce que société mos naa ko fi wax mooy ñoo xam ne dañoo tënku d'accord ne ci lii la ñuy dox lii mooy bien lii mooy mal lii mooy permis lii mooy interdit mais loolu amu fi <laughs> c'est des individus waxoon naa la fi ci ba xaw xalifa ci débat bu ñu amoon ma ne ko bul ci sori lii ngay wax ci tali bi c'est parce que chaque Sénégalais dafa am son propre code de la route. exactement alors quand tu parles de la code de code de la route tu es dans l'abstrait dans le concret Sénégalais identifié wul ci benn norme du code de la route du code de leneen du code de leneen du code de leneen donc loolu la nga cey jàngee mooy en principe ñun la ñu war a def mooy fexe parce que ba léegi loolu man dama jàpp nekkatu fi xam nga mu ngi wax ratage. maanaam boole tradition ak modernité mais boo ko seetloo en réalité ñun dañu xamul ku ñu doon ça veut dire n'a pas réussi pour bâtir benn identité boo xam ne am na consensus bu mu def dans la conscience du citoyen ba nga xam ne am na loo xam ne jarul ngay teg alkaati ci ginnaawam. Mm-hmm. lii ngay gis nii comme ni ko Birima waxee mais ku ci nekk sa conscience moo war a nekk sa tribunal pourquoi parce que dañ la former ci notion de bien public dañ la former ci notion de dignité dañ la former ci notion de responsabilité donc nekk citoyen mooy bokk ci société am fa ay droit waaye say devoir moom mooy jiitu say droit mhm. bu fekkee loolu am na réaliser nga encore une fois une société mais indiscipline bi en tant que tel boo ko seetloo mu ngi juddoo ci li nga xam ne wéeruwaay yi nga xam ne moom lañ doon invoqué moom moo fi nekkatul. ñoo màbb. ñoo màbb. Mhm. donc fi ñuy raté régler problème bi mooy dangay ngay janoo kii di ko invoqué maanaam di ko woo ay valeur ay repères yoo xam ne mais moom dundu leen. Mhm. xamu leen il les a pas vécu. Mhm. ce ne que des repères yoo xam ne da lay relier li ma doon wax ndongo yi nan leen pensée du nostalgique la pensée du nostalgique nag réglewul des problèmes du présent ça veut dire que il faut qu'on xam nga yaa ngi fi wax l'école bi ba nga ko waxee tu as du doigt le grand problème l'école boobu dañ ko war a delloo ñi ko moom mm-hmm. boo waaw foofu dama ciy bëgg dellu seek yow euh, en attendant ma yeggali ndax am na laaj boo xam ni mm. yow yaa fi jàngalekat bi mooy ni ma doon junj sànq ndax mm. adéquation am na entre yar bi ñuy yar ci biir kër gi ak yar gi ñuy yare ca école ba boobu dañ rupture totale dañ ciy dañ ciy valeur totalement opposée dañ ciy dellu si may ma may ma léegi ah. donc foog nga foog nga téyal ma ko ak sanction dinañ ci dinañ ci dikkaat ah. léegi Charles fay balaa may ñëw ci buuba ak ak ak euh, euh, déjà yow euh, hmm. commentaire ban commentaire la ak ban yëg-yëg nga am ci image yi nga xam ni gis nga ko ñëpp gis nañ ko lii bettuma mu wër internet ak àddina non lii bettuma lii koy bettuma c'est tous les jours que je vois ça tous les jours ma gis ko ci tali wala ma gis ko feneen donc du c'est c'est pas nouveau c'est pas nouveau di ñamee xool waxante dëgg man si suis pas tellement d'accord ak euh, yenn développement yi xam nga boo xamee loo bëgg kon xam nga lu nga doon Sénégal dafa xam lu mu xam na lu mu bëgg lan la bëgg boo gis xam na lu mu bëgg lu mu bëgg lu baax su moom lu baax si moom. léegi ñeneen ñi nag loo xamante ne moom la définir moo baax si moom. waaw ma ni ñeneen ñi nag. kon kay amatul. non déglu ma non dama la ne. dama la ne c' est l' ensemble qui fait la société. man kañ dégg naa ko moo tax. xam nga c' waa ji nee na duri xem duri bu bu ko neexee moom na ko wax. ah duri xem neexee. mais waaw je suis d' accord mais la société kay la société cette force c' pas ensemble d' waaw ah, sinon tu n'as plus de société kooku loo loo si wax loo si wax la neen koy waxoo ak man xanaa dama ne boo xamee yow loo bëgg nga xam loo bëgg xam lu nga doon sa sa à c'est aussi simple que sa nga am code de la route jàng sa code de la route ñëw ba si passage piéton doo may koo xamante ne mu ngi si traversé mm-hmm. ngaa saa waaye mm-hmm. xam nga xam nga affaire gi mm-hmm. nga ñëw taxaw si passage piéton empêché nit ñi dafa traversé waroo fa taxaw jàngal dan la ko mais pourquoi ko def tu as choisi de ne le faire. feu rouge nga nga bourlé ça veut dire nga buruxlu ci te bokkoo ci. waaw le sénégalais a choisi d'être ce qu'il a envie d'être fi laa toog ne leen bu ñu tegee mur bi fële si yoonu aéroport pour man saaga la parce que je considère que buñ ko tegoon pour leneen lu dul nit man nangu mais dañ ko teg pour man un être doté d'intelligence mm. je suis du règne animal la différence c'est que je suis doté d'un esprit tu es devenu fou xam nga qu'est-ce qui ne va pas chez nous non c'est ton choix on dit on n'a pas de repère je suis pas séné non je suis pas d'accord mm. repère rek lañu am dëkk bi mm. mais ça waaye boo ma ne je prends la minorité je suis chrétien je sais de bien ce qui est je suis pas chrétien non gars yi dañu may may ma wax. xam nga. Euh, xam nga xam nga xam nga bu la waxee Iqra lii. Hmm. mais boo liiree am xam-xam. boo amee xam-xam cultivé. boo cultiver am lu ngay def ak loolu dul def. ñu ne la loolu rek doyu bu dee xam-xam bi amoo ko demal ba Chine uti ko boo demee Chine doo fa fekk jullit ni yow chinois nga fay fekk si lu mu doon si lu mu nekk nga jël lu ngay jël si moom ab lu mu koy transformer pour apporter le plus ñun xam na luñ bëgg nous avons décidé d'être différents d'être le sous-produit que nous sommes de créer des sous culture que nous vivons tous les jours d'avoir des sous-éducations que nous vivons toujours moo ñu neex dangay ngay ñëw dugg dama lay sànq rek dama dugg si benn boutique mu dugg si benn boutique pour jënd. foog ngay bàyyi ñuy xuloo nag ndax. non waaw xam non non non non dama leen di bàyyi dama leen di bàyyi non juste exemple simple quoi. et yéen ñëpp vous l'avez vécu. ma ñëw fekk koo xamante ne moomu jiitu mu am koo xamante ne ñëw na romb ma dem di kii kooku yéen fekk ngeen ko tous les jours. Mm-hmm. c'est quoi le problème c'est quel type de société. maintenant maintenant wax ma. ce n'est pas une société. au niveau maintenant comment on peut avoir des institutions qui ne font pas et qui ne vont pas respecter les lois. qui ne font pas que ñun duñu def loo xam te moom la ñu war a def c'est là qu'il y a la faillite pourquoi pourquoi boo xamante ni tout on sait que dañuy dem Touba on sait ce que ça veut dire en termes d'économie on sait aussi ce que ça veut dire en termes de catastrophe et on arrive à avoir 60 morts xaw ma 50 morts comme ça ñu ne yàlla c'est Dieu le criminel de cette affaire là et tous les ans et tous les ans et ça ne choque personne le ministre qui ministre boo xamante ne il prend une décision vu le rythme de mort au quotidien je décide que lii du am ñu ne waaw yi dafa am ñu ne la ceinture de sécurité ceinture de sécurité gars yi la duñ ko takk ñu ne la permis à point mais je te dis le vrai problème de ce pays là il est absolument politique parce que bés boo xamante ne man ñëw naa c'est l'état qui m'intéresse l'ambition politique est une autre chose. xam nga ay kii mais dañuy régler dëkk bi. li nga junj Charles peut-être pour nit ñi comprendre bi nga ne benn ministre bu jël décision mooy gare routière yu ne à partir de 22h euh, day day tëj su ma juumul c'est 22h. waaw ne 22h 22h d'accord alors non pour nit ñi mën a comprendre. waaw waaw waaw mooy c'est adossé aussi à benn statistique parce qu'il est démontré que 80 pour cent des accidents se passent la nuit. bon léegi nag ndax décision bu baax la wala baax. mais attends Der non il faut comprendre ça veut dire que lui quand il s'en rend que accident yi bu amee entre intervention sapeur-pompier yi opito yi et ainsi de suite les les les traumatologies internes ak yooyu yu muy indi il prend ce risque parce que il n'y a pas de réponse adéquate et dans les heures mm. qu'il faut pour sauver les personnes alors Bouba dama bëggoon a xam di ci li Charles wax xëy na am nga gis-gis boo bëgg joxe ci li nga gis ci image yeeg yëpp mais ci moom bu ma ko déggee dafa mel ni nee na Sénégalais yi dañuy daje ci biti ku nekk di def li la arrangé li la arrangé li la arrangé ba dajee keneen ki di def li ko arrangé li ko arrangé ba seen ñaar ba seen ñaar yi euh, naka laa koy waxee voilà woroo mm-hmm. seen intérêt yi bu woroo nag la problème di dikk mais tant que yaa ngi def li la neex muy def li ko neex am propre kodam ni mu wax même ci tali bi ni ngay wax mu demee mm-hmm. noonu y a pas de problème mm-hmm. defal li la neex mais def li la neex ba su suñuy intérêt divergent est-ce que yow noonu nga ko dundee ah, <coughs> malheureusement du ma ma mën a dem ci côté ma maîtriser sama ay idées yi may wax. Ah. c'est-à-dire si je rebondir sur ce Charles dit dafa mel ni yaay dicté fu may dem. <laughs> non non c'est vrai en plus je veux parler librement. non ko yëgee man wuy ma ah. j'ai appris à appréhender Giancarlo ah. positivement. waaw amul benn problème noo ko dundee rek noonu la. ayca bismillah yow la ñuy déglu wax li nga xam waxal lu la neex. moom yow la ñuy déglu. parce que peut-être que mu bañ a nekk ci même ligne bi. que hmm. que ñeneen ñi quoi. ayca bismillah yi nga def sànq su ko Pierre mënoon teg man man sama jàngat si dans dans toute cette mhm. histoire là par exemple quand tu regardes ça waaw quand même euh, en toute modestie ça fait quand même 30 euh, ans wala plus qu'on voyage en tout cas que man may tukki uh-huh. yàlla baaxe ma may tukki mhm. may dem fépp waaw euh, du ma gis lii. jamais fii nii non. xool xool xool non non gis naa gis naa ko bu baax dama ne lii Léopold Sédar Senghor fii. Ah. gisuma ko fii quand même am na raison. parce que internet dafa nekk loo xam ne lu daan làqatu rek. génne na ko mais saa yoo gisee dara je pense c'est bien aussi jël recul xam lan moo tax loolu am. mais ça ne saurait euh, justifier. Euh, bàyyi bàyyi ma bàyyi ma rek d'accord mais man it damay préciser. mais non non bu ñu dul laajante non bu ñu dul laajante tamit du neex d'accord mais danga il faut nga bàyyi ma ma wax li ma xalaat. bismillah waxal gaa yi sinon c'est pas possible. der danga may bàyyi ma wax li ma xalaat. ayca kon waxal sa xalaat dama ne dama ne dama ne c'est pas pour dédouaner lii. mais euh, interprétation benn mhm. image bu ñu gis ci internet bi te ñun demuñu fa fekk ñu fa mën na am raison parce que peut-être que je suis tombé sur benn wala ñaari nit quand même qui ont pris qui ont acheté un billet d'avion bu cher jóge France ñëw ba fii à vingt et une heures jusqu'à trois heures du matin di xaar sa bagage accumulation de vols yi ñëw mu am cinq vols mu am lu ma trois cents personnes qui n'ont pas d'interlocuteur nit nit rek la nit nit rek la. Mhm. je ne pense pas que nit bu jël avion ah ak ni avion nguur gi neexee nga wàcc ah di nga def boo wéree di nga jëgg ci benn tapis pour pour pour enjoy ko. Mhm. y a une raison. Mhm. moom laa lay wax nii les gens ont pris des des vols ils sont venus ici ils sont restés quatre heures de temps à attendre leur bagage sans interlocuteur ils ont décidé dem ci biir pour xool fan la seen bagage nekk loolu dafa am ñu gàddu responsabilité boobu ça ne dédouane pas. bugguma mu refléter un peu tout ce que peut-être que sax c'est pas des gens qui habitent au Sénégal peut-être que ñuy dugg ci tapis bi dëkkuñu Sénégal peut-être que ils sont ils en France foofu lañ juddoo kenn mënu la wax ni kii Bouba Ndour la tudd wala euh, wala Khalifa Diakhaté wala wala Charles Faye donc yaa a une raison loolu moo tax nit lii dem fii soo demee si beneen image bi euh, muy bu bu car bi mais car bi mais nii rek lañ ko mën a pousser xam nga lu tax.

wax bismillah dama ne du ñu ñu affronter comme Khalifa Diakhaté. non je ne cherche même pas à faire ça mais <laughs> la kañ ayca. bàyyi ma ma développer comme ni nga bàyyi bàyyi. gars ayca développer dama ne la dama ne la boo gisee car bi. Mhm. muy daw depuis quarante cinq ans wala quarante ans. mais tout à fait normal. que bu amul amul lu ko reculer amul doole yëg bu déggee benn descente bu ndaw amatul doole yëg. c'est loolu c'est la responsabilité de qui. kan moo bàyyi car bi muy daw te warul daw nit ñi ciy voyager chaque jour nag on parle de ay ay accident de de la route mais te permis à point du loolu mooy le problème bi xam nga lu tax nekkal Michael Schumacher wala Hamilton quand on te donne une voiture sans airbag sans frein buy daw depuis 40 ans nga def ci ay 20 personnes di di voyager su accident amee maara day taali bu ndaw ñëppay dee c'est pas parce que tu es un mauvais chauffeur wala dara oto boobu dafa daw donc il faut ñu situer responsabilité mm. nit ñi am na benn waa ju ma doon wax toj defaraat mais toj bi toj bi c'est une volonté boo xam ne dañ ko war a établir c'est un processus buy jël temps nit ñi soo leen bàyyee ci lu ñu ne dëkku àddina bi yëpp nit yëpp a yem fépp partout boo leen bàyyee ci lu leen neex tegu leen ci conditions yi ñu war a teg ñu nekk ay mala boo leen demee li la koy illustrer jëlal avion nga dem États-Unis quartier bi nga am fi am violence fi am drogue fi am cocaïne héroïne lépp lu bon ci quartier noir yi gën a bon parce que dañ leen bàyyi seen bopp ñu mel ni ay mala ñoo ñu gën a ñoo ñu gën a indiscipliné dañuy mandi 24 heures sur 24 te c'est les États-Unis d'Amérique parce que c'est délibéré mm-hmm. te pourtant américain lañ passeport bu bëla lañ yor fu ñu dugg dugg du ñaan visa mm-hmm. dafa am loo xam ne pour man dafa am solo mooy que bu ñu nit ñi dañ leen di teg ci yoon te yoon bi dafa am ñu koy incarné et c'est pas régime bi wala bi ci jëkkoon ak di moom laa wax ni processus bu gudd la boo xam ne euh, nit yi bu ñu yaree seen doom yi seen kër yi ba pare bu ñu génnee si biti ñu am aussi euh, kii boobu nu mu tudd encadrement boobu parce que sinon nous tous on est responsable ku nekk rek am nga loo mën a jël baaram boo xam ne mun nga ko joxoon sa morom mais li ëpp solo ëpp solo mooy nettoyer mettre la cadre ba nga xam ne nit ñi aussi war nañ ci mën a tegu société dañ koy defar Chine ngi yàggul Corée ngi nii yàggul dëkk yooyu yàgguñu yàgg yàgg nañu mais c'est-à-dire seen développement yàggul ba ñu xëyee bëgg a jóg ah jiitu dafa am nu ñu defaree formaté seen nit yi. voilà. Mm-hmm. te loolu dafa am solo te loolu. nit ki mënuloo ko bàyyi moom kenn mu éduquer boppam moom laa doon les formes. Mm-hmm. Taliban bu nit ñi wàccee nekk 300 personnes dañu war a am interlocuteur. il s'énerve dugg ci biir amuñu ku ñu waxal ñu dugg dem jëli seen bagage ay donc il faut pas il faut ma Birima Ndiaye ayca waaw bokk ñu jëm jëm ci côté boobu xam nga dama yaakaar ne foofu loo xam ne fu nit compagnie bi nga xam ne moo indi Sénégal ñooñu moom ñu aéroport bi sa compagnie bi nga xam ne yaa ci dagg bi ba jafe la naqari yaa compagnie yooyu koy gérer mais du aéroport bi compagnie moom aéroport bi <coughs> boo bu la Air France wàccee Sénégal nga toog trois de temps gisoo koo waxal waa Air France nga war a waxal. mais amoo leen discours mais voilà. du raison pour nga taxaw euh, ci kaw ci kaw kii moi je pense que ak même bu sa bagage. mais li nga fi wax dara taxaw fi waxoo fi dara lu leer. dara lu taxaw bu ma waxu fi dara lu leer <laughs> may ko mu wax bi ñuy wax. dama jàpp ni voyage gisoo sa bagage. du la dédouané nga fekk loo xam ne billet public la réew mi ko moom investi ay milliards amu sax un mois ngay dox ci kawam. di génn comme bagage di tëb di di jubilé ci kaw di jubilé ci kaw parce que sa bagage ñëwut. fii ku ne mos nga voyage sa bagage ñëw ku ne voyage sa bagage tardé <coughs> mais compagnie bii la indi mooy wax ak yow mooy bind affiche wala sa bagage ñëwul saa lay bu ñëw nga def attaque ji aw agent agent bu ne am nga bureau ci aéroport yi ñoom ñëpp am nañ ci ay bureau amul benn aéroport boo ubbi te boo laaj ana Air France ñu ne seen bureau nga ne Bruxelles Airlines ñu ne seen bureau nga ne Air Royal nga ne seen bureau nga nee xëy ci bureau ba mais amul. waaw dama ne dama ne dama dama ne dama amul du raison pour nga taxaw ci tapis man jàpp ma ni mag mu toll noonu war a taxaw ci ay tapis parce que amoo koo waxal jëf ji rafetul rafetul nañu ànd ëpp aéroport mënul ñàkk ngeen amoo koo waxal mënul nekk dama loolu mënul nekk aéroport foo yàgg si ko waxal da nga amoo ko trouver solution sa problème. mais am nga ko waxal je pense que ñun ñëppay voyagé ñun ñëppay voyage aéroport bu ne dem nañ fa mais lii bu doon bu doon dañu ne franc ci seen bagage ñëw ñoo ñëw ñoo yëg ci ko affaire bi xaatuñ ko sax. Euh, Papis Diaw moom moo waxagul. ci tour de table bi ayca. Papis yow noo gisee. damay am non damay déjà prétention si li nga posé euh, professeur mu dank fanaan la pour répondre. Euh, waaw moom moom de professeur laa mais boo ci bëggee. professeur la question est très simple. xam nga adéquation pour mu il faut moom ñaari affaire yu war a linkante. waaw amul sax éducation si kër yi amul y en a pas. amul y en plus. Ah. gis nga affaire affaire bi ñu xool nii. c'est que dañ lay obligé ngay nekk moraliste quoi c'est-à-dire def ay leçon de morale et tout tu lii affaire bi nii même photo bi kese photo bi kese un spécialiste du droit wala procureur war na mun a établir chargé yi nga dem correctionnel c'est non c'est xamul pourquoi je veux en venir à ceci mooy ma ne amul yar yi adéquation c'est pas pour rien ma commencé fa kër ga amatul yar xam nga da ngay def loo eh, neex ñu lay bàyyi. démission ngay def loo neex ñu lay bàyyi. nga dem ba benn moment nga génn sa kër di ko def si mbedd bi ñu lay bàyyi. xam nga fa la ñu amee contradiction wala fu euh, may comparer ak bi xam nga tubaab bi mu nga nekk xale ci biir kër. xale bi ëpp sañ-sañ bàyyi ji parce que loolu def ñu ne harcèlement violence xa euh, doom wala dara mun na nekk mais par contre la où ils ont wala boog ñu wàññi ko xale boobu bu génnee wala nit kooku génn si mbedd bi def lu mu warul def yoon bi day dal si kawam. Mhm. da koy tamponné ba mu tëdd. autant fii dañ daan danga daan xam nga fii à l'époque sax def yenn yi dañ lay tëcc ba nga tëdd après suba nga xoolaat fooy teg sa tànk mais xam loolu ñu ngi on on l'a perdu. moo tax ma ne euh, Sénégal dafa am benn confusion bu ñuy def si euh, diw dafa civilisé ak diw dafa set dafa xam nga civilisa civilisation civilisé c'est dans la tête. d'abord dañuy jaawal ne dañu war a wax kii dafa set. parce que lii ñàkk si avant civilité la quoi c'est-à-dire yenn yi du question ay bagage nit jël voyagé na bagage am réer dix jours ñu koy doog retrouver dafa def scandale c'est pas lié pour man lii incivisme la civilité bu amul. non réewande pour man sax romb na. incivisme euh, ba pare ba pare ba pare ba pare ce qui est dommage à chaque fois tu es la chroniqueur. ñu naan dafay joxe leçon de morale parce que il peut nous arriver ñu am ay manquements dans notre vie tous les jours mais pour autant on doit s'arrêter pour dire que lii ñàkk yar la civilité bu mais bu bu existé wul la. alors professeur ma ñëw ci yow donc pour un peu ñu dem vers les solutions ndax ni ni niñ ko junjee. les blancs entre guillemets sans connotation kii gënuñu ñu vertueux mais ni ko mm-hmm. Papis waxee. Mm-hmm. xam nañ ni lu ñu def am na sanction bu leen ciy fekk. non moi je suis non non non pas, euh, euh, euh, euh Charles. Ah. je suis obligé de poser le débat en ces termes. Ah, fii xam nga ni loo fi def. Charles il justement Charles xanaa déggoo ma. c'est ce que je t'ai dit. il n'est pas plus vertueux. non non. non non oui ma. non pas excuse-moi. non non non voilà organisation. fala fala jëm si biir ma may ma may ma Charles c'est ce que je t'ai dit je t'ai dit qu'il n'est pas plus vertueux que toi. dama ma déggul su ma ko fu ma ko adossé mooy moom xam na ni lu mu def yar yar dal ko la la sanction effectivement moo tax doo ko gis fi ma cité un exemple j'ai commencé par te dire que gënu la vertueux mais hmm, non non non non je suis en train de lui expliquer parce que xëy na dafa comprendre fi ma waxee donc donc léegi yow hmm. Hmm. professeur li ma doon laaj sànq mooy nu ñuy def léegi xanaa adéquation entre yar ba ca école ba ak yar bi ci kër gi moo amatul. ba nga xam ni mën nañ mën nañ ci mucc comme jàngalekat la ma jagleel la laaj bi ak élément sociologue. après ñu waaw loolu question moom comme ni ko Paul waxee c'est clair déphasage rupture totale. parce que valeur yi nekk ca kër ga ci société ba bokkul ak valeur yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci école ba suñu école bii bii mooy l'école l'école officielle formelle. logique ba nekk ca école ba logique ko compétition ba bokkul ak logique de solidarité en principe mhm. donc c'est deux logiques c'est deux orientations totalement différentes mhm. boo déggoon sànq may wax identité parce que Bouba cité na fi ay Corée manaam ay puissance yoo xam ne mooy ñu woowee les dragons asiatiques mhm. ci diir bu gàtt mhm. am na il y fi ñu tolloon lañ toll tey rawee nañ ñu loo xam ne wax dëgg yàlla mënuñ ko dab des années lumière loolu li ko waral mooy ñoom dañ ko togg à partir d'une identité culturelle mhm. identité culturelle boobu doo ko décréter identité boobu dafa am ay instances yoo xam ne ñoom ñoo koy véhiculer ba mu yegg bu entre guillemets formater la conscience de l'individu ba jox ko une citoyenneté telle que am na lii loo xam ne du ko mën a def boo déggee ma wax loolu hybridité boobu xam nga fu mu jógee mooy que le sénégalais en tant que tel il est héritier de valeurs mën na nekk des valeurs sociales des valeur religieuses nangam nangam nangam il est face à un monde boo xam ne ces valeurs là il a cessé de s'identifier à ces valeurs là et il veut s'approprier le monde dans lequel il vit donc loolu li muy jur mooy dama déggoo sànq may fonaan la l'école bi dañ ko war a delloo ñi ko moom buñ ko delloo ñi ko moom ñu togg fa sénégalais bi nga xam ne moom la ñu bëgg parce que sénégalais bu ñu bëgg encore une fois dañ ko décret dañ koy togg ñu ngi koy togg ca lekkool ya ñu ngi koy togg ca daara ya ñu ngi koy togg ca kër ya bu demee booy jëf quel que soit le niveau responsable da bam nekk loolu daf koy dab l'aventure ambiguë Cheikh Hamidou Kane mu dem ca tugal toog ndaw sa yëkkati kaasu sàngara jox ko mu dem ba bëgg a naan sàngara bi loxo bi def nii mu taxawaat mu ne l'image de Samba di di euh, maître maître euh, coranique ba ko doon jàngale Fuuta dem naa bu di ko jël mais su ma ko jëlee j'ai trahi tout un héritage spirituel intellectuel et mental si je le bois c'est la rupture entre celui qui m'a fait ka ko mooñ defar ko mu jël valeur jalobe yi def ko ci moom ba mu sax ci moom tax na ba ba ko nasaraan bi nga xam ne sopp na ko lool bëgg na ko lool joxe kaa sàngara moo dem bu koy jël jëmm Samba Diallo feew loolu waxin la xam nga jëm euh, maître du foyer Arnaud loolu waxin la waxin bi mooy ñun sama sëriñ l'école bii nga xam ne la ñuy tàggatee suñu ndongo dañ koy laaj loo xam ne mhm. mënta fexe ba cin ba bu ñoree buñ koy yegg mu jur li nga xam ne ñun loolu la ñu bëgg parce que l'école bi kat da nga ko war a jox une orientation boo xam ne dafa nekk en rapport ak say valeur u bopp ñee bu ñu defaroo dañoo dumóoyu les américains dumóoyu le modèle européen coréens yi ngay wax ak japonais yi dañoo jékki-jékki dumóoyu ne ñun am na ay valeur à partir de ces valeurs là yu ñuy sécrété ba moo fi nekk yaa ngi fàttaliku ba may too affaire ay fàttaliku mu mel ni Khalifa nekk sama mm. ba may <laughs> ba may too ba may tooñ rapp kii bi Idrissa ma ma yegg li feneen ma koy nuyu ca bësam bu mag ba toujours ah damaa dem feneen ma gis vraiment école ba na muy tàggatee naa nangam lan mooy problème bi ma ne ko école bi dañ ko delloowul ñu ko moom ma koy tooñ naan ko bu fekkee da ngay bàyyi fii maam limaamu laay di jàngale Chouin laay bàyyi fii sindi di yàllaaw di jàngal na ñuy butee doo am xom doom bi nga bëgg maanaam ki ngay jur ne méng ak li nga xam ne moom nga bëgg merci professeur d'accord xam nga euh, DER euh, on veut pas changer cest à affaire baa ngi fi on veut xam nga DER sànq dañ commencé si benn affaire sànq par rapport à OFNAC mu am information yoo xamante ne ñaar la yoo jox. benn bi daf la jox la psychologie des sénégalais. beneen bi mu jox la les mœurs nationales les mœurs nationales lu dëgg. loolu mooy jàngatu étude boobu. yow nga ne yow nga nekk gouvernement nga xool fan nga jëm ci prends des décision décision ba mooy kan boo demee pourquoi je di dis euh, boo nekkee si dëkk tubaab yi contravention moo tax ñu jug bu amuloon mais pourquoi amu fi. j'ai dit on a réalisé le miracle d'une société sans dire pourquoi non non c'est-à-dire pourquoi amu fi non loolu tax ma ne la. nous avons tout ce masla tout ce gère. waaw nous avons nous avons décidé. d'être ce que nous sommes devenus nous l'avons pensé et on l'est devenu. ñun ñoo ko tey. tey boo bëggoon toog c'est-à-dire dafa amoon benn rupture. il y eu le service militaire obligatoire à moment boo xamante ne sénégalais yi le pouvoir ne pouvait pas l'État ne pouvait pas supporter ça mais tey boo bëggee sénégalais changer pourquoi tu ne ferais pas un service obligatoire social boo xamante ne xale yi à partir de la troisième d'une manière ou d'une autre ca huit semaines dans l'année yoo xamante ne faw nga xam sa dëkk faw nga xam dëkk bi faw nga xam léegi et ainsi de suite c'est-à-dire nit ñi quand tu boo toogee il faut euh, der may nga mu wax bu baax xam nga dëkk boo koy gérer le Sénégal est de 2035 ok on parle par exemple de l'émergence quel est le Sénégalais que tu vas avoir en 2035 mais il faut le construire comment tu vas le construire quelle est l'orientation que tu as prise pour construire ce Sénégalais là mais c'est là c'est un laboratoire dëkk boo munti dem dafay am laboratoire pour atteindre les objectifs yoo xamante ni moom nga séntu moom nga bëgg on n'en veut pas daa am benn affaire bu ndaw ngeen xool ndox bi on a pris la fois dernière on parlait des bouteilles d'eau mais si lan la jógee sachet yi la dañ doon jël mbuus ku si nekk jël def noonu lan moo doon conséquence ga c' est pas seulement que c' pas hygiénique d' abord si biti c' est pas hygiénique par rapport à climat kii bi lu mu tudd détérioration affaire mais bu ñu fàttale nag mooy garab yi muy indi les maladies diarrhéiques et ainsi de suite qui coûtent excessivement cher à l' État mm-hmm. ñu xool comment on va changer les comportement quand tu veux changer le comportement d'un peuple tu le changes dama lay jox exemple sportif nañu ñun ñëpp dem nañu stade Léopold Sédar Senghor mais à un moment lu fa newoon on a voulu l'enlever oui on a voulu enlever lu fa newoon tout ce qui se trouve autour nga xamante ne c'est indigne d'un pays civilisé eh bien non il y a eu des ordres qui ont été donnés pour que ça ne bouge pas mais c'est ce qu'on veut Sénégal boobu lañ bëgg mais der dem nga Petersen man Petersen dem ngeen Petersen qu'est-ce qui se passe à Petersen en plein plateau ci jamono boo xamante ne bu ñu waxee tël tël catastrophe am na mu nekk voie de dégagement ñuy ñuy nangu loolu c'est-à-dire ce pays on a accepté une sous-culture ñemewuñu ko wax léegi nag bu fekkente ne man kii c'est-à-dire tout le monde est coupable il faut man sous-culture la parce qu'on est bien plus cultivé que ça non non Charles Charles ma la doon doon daal bu may wax rek may dag ñi gars yi dañuy wax s'il te plaît non xam nga ban exemple laa ko doon jox pour le confirmer buntu pharmacie waa ji taxaw yor des médicaments ci mbuus taxaw di ci arrêt bus bi pour dem Dakar jaay. ay buntu pharmacie mu yor des médicaments de la rue taxaw. Euh, Ablaye. arrêt a nekk buntu pharmacie man ma taxaw se image ah mais c'est extraordinaire may lan une image s'il vous plaît non image yi nga wane pour ma prétexte la. <laughs> waaw pour poser pour poser mhm. mais boo xam ne ni eh, dafa crucial. cest dañ nekk ci rouleau compresseur boo xam ne bu ñu taxawul. fu ñu jëmee du baax. baax te suñu responsabilité ñun ñu toog fii yëpp parce que ban societé la ñuy bàyyeel suñu ay doomax suñuy sët foofu lañ tollu tey jii pour man dama jàpp ne dañu échoué modèle de vivre ensemble bi nga xam ne ni mm. ñoom ñoom Senghor ak yooyu bu ñu fi nekkoon bëggoon nañ ko tabax mm. on a totalement échoué te e, e, échec bi lu ko indi pour man am na si ñaari mbir mooy benn bi on a fay ci politique yi nga xam ne ni moo waroon organiser suñu société ñëpp gi ci seen bopp beneen bi mooy suñu système éducatif dafa fayit te fayit bi aussi mu ngi ci njalbeen bi niñ ko fi tegee mu ñëwaat ci suñu rapport ak état bi nga xam ne ni moom la professeur doon wax sànq li mu wax sànq c'était euh, aventure ambiguë mhm. loolu fan la ci daara ba la woon la ko mhm. jàngee mhm. amoon nañ fi lël ba foofu fii ñuy jaar na lépp xam nañ ne am na lu ñu fa jàng loo xam ne ne ñu toll dina leen fekk si duñ ko fàtte donc am nañu socle valeur yoo xam ne ne ñun ñoo ko moom mais jàngaluñ suñu bopp ñu dañoo jàngalul suñu bopp c'est-à-dire une société qui ne s'enseigne pas mënul bëgg boppam parce que du xam boppam soo xamul sa bopp nooy bëggee sa bopp donc on dañ nekk société bu ouverte boo xam ne ni fii amul sax tamee cest à lu ñëw dugg daal fii lu ñëw dugg malheureusement léegi nag jaar seen télé yi aussi yéen ngeen ñu koy sonn rek mhm. suñu doom yi ñu kenn xam ci lu ñu nekk sax léegi faf pour nga éduquer yow finalement yow sa objectif d'éducation yow xam nga lan lay doon mooy essayer jox sa doom au moins capacité de discernement. voilà parce que mënuloo ko éviter loo mu gis yoo xam ne ne bëgguloo mu nekk ci yoor yi. Mm-hmm. mais boo fexee ba moom mu xam ne ni lii am na ci àdduna. waaye lii tam am na. waaye lii mooy li gën li nga xam ne ne mooy yoon bi ma war a jaar parce que soo faral ma sama askan boo ko defee bu fekkee xam na loolu moom dina mujj mais bu xamul loolu. mais lu ñëw yóbbaale ko te foofu lañ nekk li ñu dund ci dëkk bi dafa métti ñun dañ gis lu bari. Euh, fii ñiy liggéey ak nit ñi tout le temps di génn ji guddi di def ci bëccëg xam nañ suñu société fu mu toll mais affaire bi war nañ taxaw nag franchement jërëjëf waaw ñu liggéey ñu liggéey ci merci beaucoup merci beaucoup vive la folie euh, une minute pour conclure sur l'indiscipline man man man lu may wax moom mooy cest di que mm, responsabilité partagée je pense que nit yi aussi dañu am tous ak ak yelleef yoo xam ne dañ leen ko war a jox nit ki pour man dañu war a jox Sénégal bi gëddëm parce que dañu nekk ay pays pauvre yoo xam ne ñu bëri amuñu te nit bi bu ñàkkee yenn ñàkk yi des fois te amul benn benn sentiment que vraiment am na benn benn benn doole bu mu taxawee mën na ko inciter muy def ay affaires yoo xam ne sax finalement da ko ci juger parce que même ci dëkk yi nga xam ne ñoo gën a kawe ki am ak ki amul am na fenn foo fu ñuy fekkante et la et ça c'est important je pense que euh, société moom dafa ànd ak yat yàpp mais dafa ànd ak aussi nga teg leen si ay organisation boo xam ne mën nañ ko mën nañ ko suivre mais bu organisation bi amul mënul nekk te organisation boo pour man moom mooy war a jiitu lépp mm. lu jiitu lépp parce que boo interprété image du car rapide tu sais que le vrai c'est le fait que gars yi pousse ko c'est bi waru fa nekk mm-hmm. loolu la ko sa à dire il faut ñu situer responsabilité mm-hmm. dafa am loo xam ne cadre bi tant que teguñu ko pour nit ñi jàll ci yoon wi ñu xàll ko nit ñi jàll ci nit ñi fu ñu gis yoon dañ fay jàll. xam nga dégg réew mi metti na euh, gars yi xaalis amuñu ko amuñu liggéey amuñu dara donc finalement boo boo boolee ñun ñëpp am nga bien boo ñun ñu sol suñu westal suñu toog suñu suñu suñu bu climatiser toog naan wéy sénégalais yi lii sénégalais yi lii sénégalais yi lii mais dafa am ci benn couche de société bi boo xam ne ñoom ñoo gën a ëpp. te ñooñu. am nañ yeneen priorité am nañ yeneen affaire yoo xam ne day day dafay sax dafay influencer seen seen dundin seen nekk nga sa minute bu yàgg Birima yow tamit une minute il faut ah, qu'on passe à il faut qu'on passe à gis-gis ah normalement bu ma déggoon réalisation sax yam na fi une minute pour Birima une minute pour Pape ñàkk ak jafe-jafe mënul tere yaru mënul tere gëm sa bopp nit ñàkk na <coughs> nit am na réew man je pense que affaire bi ci problème mu ñàkk ak am on est dans un pays pauvre. Mm-hmm. Sénégal est un pays pauvre. Mm-hmm. dañuy jóg pour développer ko pour mu jóg pour jóg ci pauvreté boobu mais de raison mu ànd ak indiscipline ak anarchie. absolument. merci. non professeur vas-y man c'est bon. raison parce que boo déggee boo c'est vrai que mu ngi jiital l'aspect économique la pauvreté décalage bi am. mais Bouba ce n'est pas la richesse qui crée la vertu c'est d'abord la vertu qui crée la richesse maanaam da ngay yaru. tegu ci na nga war a def richesse fekk la fa te loolu éducation la lii boo gisee ñeme ko def parce que xam nañ ne waa réew mi ci seen bopp ñoo koy jiite te dara du la ca fekk boo gisee ñu koy def feneen parce que <laughs> xalaatuñu ko gisuñ keneen def ko ndax ñee nañu leen yare ak nañuy doxe doo leen yàpp ba lii nga di ko fa def un point un trait ils de ce que nous sommes Merci en tous fous gis-gis c'est la folie qui est devenue la norme alors gis-gis euh, déclaration Aminata Touré ancien PM euh, traque bien biens mal acquis l'État a récupéré plus de 200 milliards RFM matin la ko waxoon mardi 19 décembre pour citer source bi Birima du mooy état bu doon bu doon moom mooy état man ko tontu bu doon agent judiciaire de l'état moo ko wax man bañ teg sama baaraam wala ministre de la justice mais moom Papis Diaw. mais traque yi ëpp na lii <laughs> na gën a ñëw ah <laughs> a besoin de nos sous ah man du ma commenter si kan moo ko wax ak nu ñu ko waxul ce qui important mooy li ñu moomal nañ ñu ko andiwaatal point barre Bouba man de xaw ma <clears throat> xaw ma coïncidence la xaw ma mais boo àjjuma bi passé j'ai wax naa fi lu leer dama ne euh, président Macky Sall war nañu expliquer clairement traque des biens mal acquis fan lañ ci toll bi ma dégg lii foofu laay. ayca professeur waaw bu fekkee rek commencé nañu récupérer bu am 200 milliards mais bu mu dakk na continuer parce qu'on a besoin de nos fonds. Charles Bouba Bouba. oui del naam. waaw. dugg ci askan Sénégal loi moo ko tëral. Mhm. loi de finance loi de finance rectificative. Mhm. nañu wan ne xaalis bu ne dugg na dañ ko gis ci budget Sénégal ñu gis na xaalis bi dugg na dugal lañ ko fii rek lañ ci def. gis-gis bi ci topp alors euh, Moustapha Sow économiste DG SF Capital l'arrivée du Maroc devrait être une source de motivation pour le secteur privé maanaam euh, ñëwu Maroc bi ñuy laam-laamee fii ak euh, ci euh, zone kii bi dafa waroon a nekk secteur luy suqali suñu secteur privé wala lu leen di yokk wala ñaax yokk njàmbarte maa ngi seet naka laa koy waxee boobu ba léegi dafa fekk ci l'observateur mercredi vingt décembre la ko wax mm-hmm. ak fan yi yëpp dégg nañ tamit coowu Maroc bi mu bëggee dugg CEDEAO yi ci am secteur privé beeg euh, yenn développement yi loo noo gisee. xam nga Maroc Morago France Sénégal àdduna moo demee noo xam ne ku booy jaay nga jaay la nga jéem a compétition il faut il faut <coughs> concurrence moo moo wër àdduna moo tourné noo xam ne ci benn plateforme la boo seetloo Sénégal fukk yi fii lekk juróom-ñett jëndoo ko ci réew mi donc il faut Sénégal mu nekk benn pays boo xam ne day fermé wu rek wala CEDEAO zone CEDEAO day fermé ci zone CEDEAO ñun waa CEDEAO ñooy jaay suñu biir mootul nekk même bu ñu ko bëggee loolu c'est impossible. mënatul nekk kon ay ca Papis bi fi roi du Maroc ñëwee def fi séjour bu yàgg bi xam nga wax ma ne le Maroc a ses intérêts. Ah, philanthropie amul fenn. Hmm. c'est pas de la philanthropie chacun a ses intérêts il faut fonctionner par rapport à ça. booba <coughs> man daal ma kii en tout cas man mainmise bi nga xam ni euh, Maroc. Hmm. ñu koy am ci suñu réew yi ak réewu CEDEAO yi. te logique bi boo ko xoolee ba léegi amul cest à pour man dañu war a dépasser complexe boobu vraiment seet suñu ay intérêt parce que euh, amitié entre Sénégal ak Maroc wala ak euh, Maroc ak yeneen pays CEDEAO yi euh, dañuy abusé je pense que li ñu lay nar a jox nii nañu aussi privilégier suñu suñu suñu euh, suñu secteur privé bi moo am solo may leen doole mais boo topp toolee naan du amuñu doole amuñu doole duñ ko mës a am loolay waxi dëgg. Elimane loo ci xalaat. man lu ma si jàpp lu ma gis mooy Maroc. Hmm. réew bu am fulla la. ñu Sénégal est-ce que am nañu fulla xam nañ lu ñu bëgg. Charles. moi je vois une coquille révélatrice hein. est-ce que vous avez bien lu. Hmm. Euh, ani ani mu bë bë. ayca Charles bisimilah waaw l'arrivée du. devait devait ou de euh, attention. Mm. nii la ko waxee devait. donc le texte est plus. waaw <laughs> li nga wax nag <laughs> xëy na xëy na li nga wax dafa dafa wax ñun dafa yëg lu ñu yëgul. <laughs> effectivement. conjugaison verbe bi c'est oui ma oui Charles Charles je suis parfaitement d'accord man bi ma koy lire. effectivement ça ça sauté effectivement comprendre naa fi muy waxee. xëy na yëg na moom lu ñu yëgul ñun. Hmm. ayca. je sais que dama la naroon naa ndax devrait la wala devait. Ah, parce que nii laa ko gisee nii laa ko copier man damay copier coller jox jox nous sommes parfaitement d'accord li ma ci wax rek mooy benn d'abord damay nangu man sa ça ne m'engage que moi am na une tradition boo xam ne moom moo ñu lié ak moom et que Maroc am na rapport yoo xam ne am nañ ko ak moom yoo xam ne amuñ ko Québec xam nga yaa ngi ko bi nga invité Limam Kanté mu naan la ba amee conflit entre le Sénégal et la Mauritanie il a dit nos voisins mauritaniens et nos frères sénégalais mais loolu benn affaire la mais boo ko indee fii. Mhm. sur le plan strictement mhm. économique. Mhm. damay renverser phrase bi. renverser phrase mooy. au lieu que ñëw Maroc. nekk une source de motivation. pour le privé sénégalais. le privé sénégalais moo war na fort. l' économie sénégalaise. moo war na florissante au point que. mu nekk motivation pour que les Marocains viennent chez nous. foofu laa waxee. gis-gis bu mujj. Ah, ah ah ak euh, Pierre da Silva <laughs> ma ñaar ñaar rek la amoon na ñetteel xam naa kon dañ ko dañ ko gisul ñu leen di gërëm di leen sant jàkkaarloo ajuma ji waxtaan wi euh, amoon mbégte ànd ceeg euh, Eliman Kan bu Lex Africa euh, di yëngu ci wàllu gis nañu forum civil ni mu ko waxee lañ ko gënoon a ràññee waaye léegi it mel ni Bernard Daram <laughs> ñu lay ñaanal di la souhaiter kon bon vent di leen gërëm di leen sant yéen tamit téléspectateurs yi àndoon ak ñun ba waxtu wi ba beneen ajuma ci jàmm ak salaam mi ngi doon gaara ni bi jolol